xew-xew boo xam ni Sénégal bu ñu koy daal di waajal ni ki li nga xam nekk moo di euh, mardi bi euh, jëm na na si ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko euh, fas yéeneen ko daal di taxawal si yan ak wàllu yanal alors si mbiram ak li nga xam nekk moo di les agents judiciaires de l'État bu Sénégal jàppe ni tam boobu de procès ñu koy daal di xaar li nga xam nekk moo di mardi ma ni kon nag tribunal bu Ndakaaru dafa mujjee daal di enrôler boobu de dossier daal di koy taxawal convoqué leen fa nga xam ne itam mooy zaanu palais bu Lat daal di taxawal li nga xam les avocats d'Ousmane Sonko et les avocats de l'État du Sénégal eh, le juge eh, Sabassi Faye que décision donne Abdou après la radiation d'Ousmane Sonko si euh, ginnaaw ba nga ko atté par atte par contumace si mbir ki nga xamné ne moo di Adji le juge Sabassy Faye si addu ni ki li nga xam ne moo fukki fan ak juróom-ñaar si weeru euh, novembre atum 2023 maanaam 23 novembre bi daal passé le ki nga xamné ne moo juge bi daal addu par rapport ak walu wu mel bo batay nak nag mu daal di euh, jur li nga xamné ne moo ay coow encore une fois par rapport ak li nga xamné ne moo juge bi kàddu yi nga xam tam itam yëkki na ko jàppale itam fu mu toll nii ki nga xamné ne moo Cour suprême mu dina ko daal jox li nga xamné ne moo tribunal bu Ndakaaru peut-être yëpp daal di koy taxawal ñeel ñi nga xam nekk moo di daal di at yi fii si yoon ak wàllu yoonal fu mu toll nii nag ñi ngi euh, xaaraat li nga xam nekk moo di bu Ndakaar ginnaaw rek euh, ba ki na xam nekk moo di Aly Ba daal di koy dénkee ki na xam nekk moo di le tribunal bu euh, Dakar daal di koy taxawal si kanam yoon ak wàllu yoonal si fàttal jàpp leen itam Euh, li nga xam nekk moo di avocat Sonko aussi déposé wonen ben euh, benn que li nga xam nekk moo di rabat d'arrêt xam tane dafa ñeeloon ñu daal di wëru mëna xol exactement taxaw euh, si nga xam nekk les vices de forme madame vices de procédure yi nga xam ne euh noté nañ ko à travers li nga xam nekk modi acte yi nga xam itam juge juge Ari Siraba génne na fa nga xam ne itam mooy zaanu Cour suprême bokkoon na la non signature bu madame Aïssata Ba waaye tam itam bokon na si li nga xam nekk ay quelques

Euh, moo di euh, moo di euh, beneen bi di li nga xam le fait que cour suprême ñu ne nangul appliquer sa jurisprudence bi nga xam ne itam moo fi tegoon en place si kaw Yaxya bi ñu ne cour suprême quand il s'agit li nga xam ne match électoral matière électorale mënul daal li nga xam ne renvoyé ba yëfi ba jëmi jamono donte sax bii pas renvoyé na loolu tamit avocat Ousmane Sonko ñu koy daal di parce que sur suñ sañoon ñu daal di koy jeexal yëfi une bonne fois pour tout nag Ousmane Sonko daal di daal di war a mën a jotaat dina xam ne moo di fiches et tant d'autres

ñu daal di xaar exactement itam ma xam li nga xam ne que moo di euh, juge bi day daal di conforter ki nga xam ne que moo di le juge Sabassi Faye euh, parce que ki nga xam ne que moo di cour suprême dafa ne Sabassi Faye peut-être li nga àtte c'est acceptable mais dafa des maanaam li nga àtte xel mën ko nangu maanaam dafa des li nga xam ne que moo di ay quelques euh, manquements ma xam manquement yooyu nag le juge de Dakar dina ko daldi di complété koy atte euh, de manière euh, définitive si mbiru ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko ak les agents judiciaires de l'État du Sénégal jàppe itam à tout moment euh, ki nga xam que moo Cour suprême nañ ko daal si kanam yoon ak walu yoonal li waral moy li nga xam nekk tribunal bu Dakar luñ fa daldi di atte loo xam ni itam avocats yi d' ñu si digganteeg ki nga xam nekk les agents judiciaires de l'État, ak li nga xam nekk avocat Ousmane Sonko dañ koy daldi di wat fa nga xam itam mooy ko Cour suprême alors ñu si ëpp na jàpp ni li nga xam nekk moo di cour suprême jeexaloon na dossier bi ni ki li nga xam nekk moo di le 17 bi ñu daal di génn ñu daal di koy wul mën daal di wul mën a jeexal jàllaat si benn li nga xam nekk moo di étape xool exactement ma xam ki euh, nga xam nekk moo di cour suprême dafay daal di jox dëgg Ousmane Sonko wala ko du ko daal di jox dëgg maanaam mooy kase

alors wala kon mm, da koy kase ba paré euh jox li nga xamné que modi les agents judiciaires de l'état état que ni yéen am deug mu nekkoon ay attentes yo xamni tam itam ñu ko doon xaar fa nga xam zone cour suprême ginnaaw ba daal di jàppee ni da ko daal di li nga xamné que modi euh, justement euh, renvoyer ñu sepp nak ñu koy daal doon dénoncer japp ni li nga xamné que modi cour suprême dafa daal di fuiroon ses responsabilités mu daal di taxawal bobu de dossier daal koy àtte une bonne fois pour toutes alors donc yefi nak nag euh, marathon judiciaire moo daal di enclenché wat encore une fois mais une très bonne nouvelle sukkandikoo si ki nga xam nekk moo di Ngouda Mboup Ngouda Mboup mu daal di jàpp ni le jour du mardi sera un jour de gloire pour Ousmane Sonko ndaxte suñu sukkandikoo si li nga xam nekk moo di article bu euh, trois cent euh, bu suñu sukkandikoo si article donc moi article ben article bu vingt neuf ak article trois cent sept je pense bien.

digganteeg Dakar ak Ziguinchor maanaam coowal li nga xamné ko modi territoire aussi amana beneen coow bo xam ne judd na si ñu bari japp ni ki nga xamné ko modi di Ousmane Sonko si yoon fa nga xamni tam modi ci diwanu sa diwaanu ko euh, Ziguinchor la nga ko daal di warul mën a parce que fa la euh, dëkk fa la ay këyitam nekk étant d'autre étant d'autre donc xel xalaatuñu koy atuwaat fi ci Dakar exactement mu nekk autant de questions yi nga xamni tam Sénégal ñu koy daal di posé allant dans ce sens le fait que

duñ si parce que c'est obligé là c'est notre domaine de compétence là mais quand même les logique et que Sénégal yi daal di koy là et que pas mal de juristes aussi daal koy dénoncer lol la peut-être les ramener xam que moo euh, les euh, avis des fois que madame khalati m'a outé et que ñoom doo que c'est ko jargon ñoo ko gën a maîtriser euh, ña nga a ni peut-être ñooy wax mais en tout cas le plus mën a am ñuy xaar benn justice bu impartial justice boo xam ni itam ñëpp dañ si daal di li nga xam ne moo di yam waaye itam si ñëpp la fi daal di nekkal donc Ousmane Sonko nag euh, ma déggoon maître Bamba Cissé sax naan nous n'avons pas au besoin d'aller à Dakar peut-être pour daal di àtte euh, ki nga xam ne moo di seenu leader en tout cas euh, pour àtte seenu client autant que pour moi hmm, c'est leur client en tout cas li plus si mën a am rek waxi mag dem na gang. Hein, faaw li nga xamné que modi procès am te jàpp ne ko li nga xamné que modi mardi ndaxte li nga xamné que modi euh, tribunal bu Dakar convoqué na li nga xamné que modi les parties mais quand même est-ce que tamit li nga xamné que modi peut-être ben lach euh, moy ma ngi dégg sànq si euh, li nga xamné que modi juriste bi nga xam ne dalal ko si midi di ki nga xamné que modi di Mbaye aussi mu à tout moi aussi euh neen xaar li nga xamné que modi euh, juge bi aussi euh, mu euh, né amul compétence àtte li nga xam nekk moo car mën len aussi li nga xam nekk faire désister le juge en plein li nga xam nekk procès là aussi ben que li nga xam nekk moo di alternative en tout cas brina peut-être les avocats d'Ousmane Sonko peut-être bi pas euh, donte diwaanu Ziguinchor avocat état du Sénégal yi ñoo daal di signé incompétence ki nga xam nekk mooy Sabassy fay bii pas est-ce que ces avocats duñu daal di euh, souligné li nga xam nekk moo di incompétence ki nga xam nekk moo di le juge juge bi su ko nangoo da nga yóbbaat fa nga xam ni itam mooy zaanu Cour suprême ni ko euh, fa nga ko yóbboon peut-être attewuñu ko atteel ñu ko exactement loolu ay. Euh, li nga modi euh, justement mm, ay aspect la wala kon sax euh, lu wër mëna nek le peut-être hein dañuy def suñu météo rek si walu wu mel Cour suprême boobaa dina ko alors Cour suprême sa décision il est irréfutable donc sax des fois mën déposé déposer li nga xam nekk moo di rabataire deful li nga bi mais Cour suprême quand même su attewee jëmale si parti bu ko sob rek inshallah allah boobaa li nga la justice sera appliquée. Euh, si li nga xam nekk mu di rigueur am ginnaaw hein, ba benn décision de justice bi nga xam ni itam Sabassy Faye jël nañ ko appliqué ko tout en espérant que BIPAR dinañ ko daal di appliqué ma xam ki na xam nekk mu di le juge de Dakar dafay daal di conforté en euh, hein, hein, son homologue wala kon sax son confrère di ki na xam nekk mu di le juge Sabassy Faye fi nga xam ni itam foofu la daal di tegoon décision boobu noonu alors Sénégal yu bëri nag jàpp ni da ko daal di sécuriser woon sécuriser bi bokk mu daal di énumérer lu bëri euh, jëmale si li nga xam ne moo di publicité yoo xam ne itam respecté wuñu ko euh, jëmale si li nga xam ne moo di euh, boobu de radiation nii respecté wuñu li nga xam ne moo di les procédures de la publicité étant d'autres yi nga xam ne itam juge bi da ko daal di rendre de manière publique motiver li nga xam ne moo di sa décision donc yi fi na dañ ko daal di attewaat commencé waat ko à zéro si kanam yoon ak wàllu yoonal ce mardi là à partir de 8 heures li daal di joxante rendez-vous fa nga xam ne itam mooy hôtel de ville bi bi ñu daal di taxaw si euh, ki nga xam nekk moo di ay mbiram alors donc mi ngi noonu ñu si daal xaaral ni li nga xam nekk moo di